lamb ji dama jaral lu ne. man góor du ma asale góor du ma gëtëng. mais dama la ne. paquet du biscuit. benn doo ko yëy. li ma waxoon maa ngi jaba tey. li wax ji di gën a bari mu gën a metti. mais ku bëgg a gis prix dur prix dur. xeex lamb joo xamante ne sama bakkan laay teg. man foo sax bëgguma ñàkk. boo ko nag ñu dugg biir koo rek maa la gën a xotteeku fuuf xotteeku yow man man may yàqu la waaw man damaa yàqu waaw maa la gën a xotteeku tàngoo fu nekk ñu dee bu gën a feeñal am ya loon def ci biir géew ya ah. loo doon def ci biir géew bi mardi dañ ñëw ñu arène nationale mardi mardi waaw mardi la dugg arène nationale ama dugg ci biir géew bi te war a bëre dimanche ànd ak turandoo ànd ak moo ko biir lamb de lamb de bi heure bi nii yow yaa moom géew na fi def heure bi kooku moom yow mais mardi dimanche nga war a bëri mardi nga ñëw si géej sama liggéey laay sa liggéey mooy bëri si mardi bëri mardi non kii daa lekk avance ba nag sa sa téléphone bii doo ma ko dindi nag xam nga yaa ngi làmb. wuyul. saa bu ah waxal ak moom. yow amoo waaye taxalu nga wax ak kii kii moo la siwal kii moo la siwal moo ko foofu. mais dafa nang mais Ama Dia en tant que ngay bëree ngay bëree ngay bëree dimanche nga déw si arène nationale bi léegi dem dugg si biir géej gi. voilà loolu la neex ma. arène bi pour la la du pour ñun la. moo tax ma dugg fa. mais tey du bisu bëre bi. bi tey du bisu bëre bi. instant semaine bi yëpp dañuy bëre. ba lënd waaw mais mais état bi nga taxawul mais mais état bi nga. yow damaa tegalee yére mu ngi. non dajale la. talla. Eh, mais Ama Dia sa turandoo bi lu mu lu mu. waaw ma bàyyi ma dañ ka wo mais nañu may wa yow man dama may wani mais assurance nak ki mu faral lolo tax mom mu baña taxaw wa amna ñaan ci assurance salam alaykum assurance amna ñaan ci lamb ji yow yaay ni la falak mom falak mom man boy boy ñu dem ñu utal promoteur bu ko tëj suba suba. suba la dañ dem fee dama am combat. waaw kañ dem fee jàpp si rek bu une minute rek. waaye sa waay yow yaa ma mën bu ma damm waay ma. yaa ma mën bu ma damm waay ma damm waay. mais kii dëggumul boppam ah. cin tàkk na la. cin tàkk na yow barki yàlla barki ak yow boo ma tuddatee. soo ma tuddatee dinañ jote. wax naa lu leer. yow ñoo ñu dem sa waay bëggoo dem. yow ñu waxante lu ñu wax de ba pare. dem sa yoon wax naa ko mu ne ma boo ñëwee pàq moom may la xaalis. waaw dama am puy foofu dama baax. ah dama tey eh, buntu pikin xamoo ko eh xamoo buntu pikin. buntu pikin xam naa ko mais xaw ma fi ngay wax. pàq la may. pàq eh. la may la troisième bête nga dugg. yow yaa ma war a woo. non dama koy woo sa kanam jox la ko. kañ waaw ay caaxaan waaye nag. da ngaa réew nag. kii da doon suul ay gàllaaj si àll bi da doon suul ay gàllaaj si àll surtout lool ah. da doon suul ay gàllaaj si àll surtout lool. problème am na. problème am na problème am na am na waaw problème yaa ngi dem waay. waaj toog nga pare. sa waay yow. mais saa day fay tamit waaye bul yàq amateur jàmbur. may ko de waaye waa Thiel jaay yow tam dandaay bi nga yëg waaye bul yàq amateur jàmbur am kaay wax ak kii. doon suul si aram bi am nga doon suul si aram bi ama ya trois heures la ñëw trois heures la ñëw arène nationale suul fi ay galaaj jam yoonam trois heures la ñëw arène nationale suul fi ay galaaj jam yoonam lu ma fi moom mu sax su ma ko mënee suul saa taxaw taxaw ñu wax ak moom taxaw suul na ay galaaj ñu dem Sungai Galang yaa ngi dem. waaw. am na looy baan baan. am na looy baan baan yow déedéet yow man nit ku bon man waaw. am na si loo nekk. maa ngi nii. kaay def toogaa. ça va bari écho. ça va damay lijjanti sa bopp. looy lijjanti looy lijjanti lu xew ak lu xew ak xewoo. looy lijjanti waaw kaay lijjanti ma ma dem. Amathia looy lijjanti. Barke yàlla. Amady taxawal ni ñu ko taxawal ni. waaw ngir yàlla doo waaye ngir yàlla sax waaye man lii indi offre période bi xawma ko sax. booy ñoo ko jàpp damay xëy rek dem. Kalla. tëkkoon maa Kalla. yaa Kalla. ah léegi la ñuy bëri. waaw léegi la ñuy bëri bu la neexee léegi. waaye ma wax naa la ko léegi woo maa dégg boo ëppoon presse zone doo gis nit. Ama Dia Ama mag ñu xaar wala ñu ñëw jeex na bëggoon a def ci biir géew bi loo doon ci biir géew bi bi heure bi yaa moom géew waaw mais bi. kooku moom yow. mais mardi dimanche nga war a bëri mardi lu sooy yow looy def fii. man sama liggéey laay def nii. waaw man sama liggéey laay def. sa liggéey mooy ba pare. man du ma bëree ku rasaw. si la. ah ok maa ngi dem. waaye sa waay nag sa waay sa téléphone bii doo ma ko dindi xam nga yaa ngi làmb. foofu mii la laaj la loolu moom. wuyul. saa yu saa yu bu dee bu dee atum émission yi. ah waxal ak moom. yow amoo waaye taxul nga wax ak kii kii moo la siiwal kii moo la siiwal moo ko fooy. mais dafa nang mais ama ja en tant que ngay bëre ngay bëre ngay bëre dimanche nga déw si arène nationale bi léegi dem dugg si biir géej bi. voilà loolu la neex ma. arène bi pour la la du pour ñun la. pour bëre moo tax ma dugg fa. mais tey du bisu bëre bi. bi tey du bisu bëre bi. déedéet instant bi yëpp dañuy bëre. ba ba lënd. mais état bi nga taxawul ñu waxtaan état bi nga. yow yow yow dajale yére mu solo gis nga xoola. mais li état la. Talla. Eh, waaw ça va amul problème mais Ama Dia sa turandoo bi. lu mu lu

utal promoteur bu ko tëj suba suba. suba la dañ dem fee dama am combat. waaw kañ dem fee jàpp si rek. une minute rek. waaye saa waay yow yaa ma mën nag ku ma damm waay ma. yaa ma mën bu ma damm waay ma damm waay. mais kii nag gëmul boppam la. cin tàkk na yow barki yàlla barki ak yow boo ma tuddatee. bilaay soo ma tuddatee leer. yow ñoo ñu dem sa yow ñu waxante lu ñu waxante ba pare nga teg ma dig dem sa yoon wax naa ko mu ne ma boo ñëwee pàq moom may la xaalis bi waaw dama am puy foofu dama baax dama tey buntu pikin xamoo ko eh xamoo buntu pikin buntu pikin xam naa ko mais xawma fi ngay wax pàq la mbay eh. pàq la mbay la troisième bête nga dugg la yaa ma war a woo non dama koy woo sa kanam jox la ko kañ lay caaxaan waaye nag da ngaa réew nag da doon suur ay galaas si arène da doon suur ay galaas si arène surtout loolu da doon suur ay galaas si arène surtout loolu problème am na. problème am na waaj toog na pare sa waay. yow wax comme waaj. mais sa waay day fay tamit. waaye eh, bul yàq amateur jàmbur. may waaye ah, waaye teeloo doon jaay yow waaye bul yàq amateur jàmbur waaye am kay waxa ki doon suul ci aram am nga doon waaw doon suul ci aram amaya damay dem amaya 3 heures ñew 3 heures ñew aram national suul fi ay galaaj jabar yoram 3 heures ñew aram national suul fi ay galaaj jam yoram lu ma fi mom mu sax suma ko mëna suul sa taxaw taxaw ñu wax taxaw suul na ay galaaj ñu dem suul nga ay galaaj yaa ngi dem lamb ji dafa jaral lu ne man góor du ma asale góor du ma gëtëng. mais dama la ne. paquet du biscuit. benn doo koy yëy. li ma waxoon maa ngi jaba tey li wax ji di gën a bari mu gën a metti mais ku bëgg a gis prix tour prix tour xeex naa mu joo xamante ne sama bakkan laay teg man foo sax bugguma ñàkk waxuma laaj nag ñu dugg biir koo rek maa la gën a xottee fuuf xotteeku yow man man may yàqu laa la wax man damaa yàqu waaw maa la gën a xottee ñu tàggoo yàqu di dem